mbokki bi yi yëpp di nuyu mbokki jullit di ndokkeel aalamul islaami ci xew-xew bu màgg bi muy dundal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëw ci jamono joo xam ne nag àdduna bi bari na ay coow waaye ni ko sëriñ bi waxee ci biir léegi rek coow yi ak xoloo yeeg lépp rek nan ko fajee li nga xam ne mooy yoon wi sëriñ bi wax mooy yoonu jàmm yoon woo xam ne dañuy gën a fonkaat yonent bi sallallahu alayhi wa gën koo wanewaat gën di ko tagg ba nga xam ne dinañ xam ne kii moom amul morom noonu la ko Serigne Touba wane woon ci adduna bi ba liggéeyam bi yegg fu nekk euh, bu ñuy wax nag tey ci bés bi muy gàmmo gàmmo gi nga xam ne Serigne Maam Cheikh Anta ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada da koy def fii ci Kaolack di ko def ci kër Serigne Mourtada Kaasnaak di ko defit ci ndigalu waajuram muy Cheikh Mouhamadou Mourtada ni mu ko waxee muy ndigal loo xam ne da ko ko joxoon ci jamono yi muy nekk ci adduna ci saayir ndigal loole mu doxal ko ñaari at gannaaw gi sëriñ bi làqu bi sëriñ bi làqu mu xam ne am na loo xam ne lu jafe la ku ko amul woon am ko dana jafe lool muy nga am ndigalal doomi Serigne Touba di màggal guddi gi yonent bi sallallahu alayhi loolee ba mu amee nag mu ànd koog ñoo xam ne euh, cosaan lañ ci liggéey bi te mu tudd ko léegi muy daayira bu mel ni daayira Fatul Fata nga xam ne ñoom liggéey bi mën na ne sëriñ bi lépp ci seen loxo la ko teg ndax lépp li nga xam ne mooy taaral bis bi ci wàllu njàng xasiida ak ci wàllu organisation loolu da koo teg seen loxo ñu matal ko sëkkit mu leen ciy sant amit daayira boo xam ne mooy fédération Mawahiboul Khoudoss di daayira boo xam ne dañ caa am tawféex tawféex ci mooy euh, sëriñ Mourtada moo joxe tur wi ndax sëriñ bee ñu ko fàggul benn bis la am mbooloo mu daje war fas yéene koo liggéeyal mu ne waaw na ngeen xaar ba mu dem ci ba mu demee sëriñ bi xamal ko ne daa mbooloo moo xam ne am nañ yéene jàppale ma ma jàppale ci liggéey bi nga may defal bi ba doon sàkku tur mu ne ko nañ ko tuddee Mawahibul Xudus nee tur woowu nag moo tax fu mu dem bu buñ ko fa taxawee daayira mu ne Mawahibul Xudus loola nag moo mujj nekk da diiwaan muy fédération kon ñooñu it cosaan lañ ci gàmmu gi waaye it ni ko sëriñ bi doxalee ci yoonu murit ndigal da cee am solo gannaaw sëriñ Mourtada sëriñ Saaliw nekk fi saa bu ñu màggalee ba ca suba sa day dem ba ci sëriñ Saaliw laajaat ko ndigal yoon yu ci bëri suñ borom dimbali ñu ànd moom ba nu de asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel di leen màggal ci weeru tedd yu ñu nekk muy màggal guddi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam euh, xam naa ndem am na ñeneen lu ñu fi jaaroon lu ñuy wax ci wàllu alxuraan ji mooy ni ko sëñ bu joxe woon digal depuis mu koy tàmbali léegi amul benn luñ ci soppi maanaam dañ koy gën a yokku kay niñ koy doxalee mooy bu weeru safar tàmbalee la ñuy tàmbali kaamel bañ màggal bu ñu jógee ko Tuuba bu ñëwee waajal kaamel gàmm gi ñu ngi ci ànd fukki daara ak juróom-ñaar ndax daanaka at mu jot daam am daara yoo xam dañ naan dañuy jéem a ñëw bokk ci kaamil yi ñuy wàccee niñ koy doxalee mooy bu yor gàmmu yi taxawee ci fan bu njëkk la ñuy tàmbali daara ju nekk bu seen ñaari kaamil rek lay def ndax njàng mi dañoo bëgg muy dëppoog nu si suñu borom bëggee maanaam mm, def ku si sellal daal ndax daara joo xam ne daanaka yu si bare bëri bëri na daara yoo xam ne ay téeméeri nit wala ñaar téeméeri nit soo leen waxee ne ñaari kaamil dañ ko mën a jàng indil benn jafe-jafe noonu lañ koy jàppee ba fukki fan yi mat ñoom ñu joxe seen i lim bu lim yooyu dajee nag dañuy ñëw ci kër gi xëy suba teel daal di continuer njàng mi ba nottu su baar ñu daal di jàng xam nu gi sëñ am sa it moo koy jàng muy rakk sëñ maam ñu bokk lépp noonu lañ koy doxalee kaamil yi ni koy jàngee mooy kaamil bu ne dañ koy te taysiir tëjee ko taysiir muy ñu jiital yàlla dogal ni laata ñuy ñëw jàngoon nañ deux cent quatre tey bañ xëyee euh, juróomi daara moo teewoon ci kër gi ndax lu dem ci fukki atam nangam ba jëm ñaar fukki at bu fekkoon ne jukk ji defee nekku ci woon ñun ñëpp danañ am na ñu deme waaye loolu nag ci euh, tànki sëriñ bi la ñuy topp ndax ku topp maam Cheikh moom xam ne wet googu kenn desut ci ginnaaw ci genn fànn ndax saa boo leen toogee li mu lay digal rek mooy digal yonent sallallahu alayhi wasallam ak lu Seexul Xadim bind ci téere yi bëggul dara la loo xam ne saayir la ci euh, ni ko nit ñuy doxalee mu xaw a jege sax moom bu toogee moo ko kon ko ànd ak moom nag lu toll noon wax dëgg yàlla dañuy gën di sant Fatal Fata nag moom macha allah. sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Mourtada suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di sant mbooloo mépp ak julli ñi fi teew ci bis bu teddu màgg bi suñu borom daa dogal muy doon koo xam ne dafa topp sunna roy sunna comme ni sëñ Tuubaa toppee woon sunna royee ko sunna loolu la doon ni Cheikhul Khadim kitaabullahi wa sunnatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci lay xëy ci lay ndax yonent bi képp ku ci moom solution ci àdduna àllaaxira da nga am solution kon mooy royukaay bi mooy ki nga xam ne fu mu nit leer am fa sax ba ba faw fépp foo xam ne nag jubluwu fa lëndëm rek fay ne kon jublu dëgg dëgg dëgg biñ soxla mooy jublu yonent bi sallallahu alayhi ay tànkam it lanu soxla ay doxinam lanu soxla kàddoom it lanu soxla te kàddu yonent bi sallallahu alayhi ak tànkam ak doxinam ci gàmmu gii da ko fekk boo fi ñëwee ndax jikko yonent rek lañ fiy jàngale ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara ci bis bu tedd bi di guddik ganek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk lu màgg ci bépp jullit euh, ñu koy sante yàlla bi ñu ci yàlla booleeg seen maam seex Anta Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada bi nga xam ne moo sàkk woon ci moom pour mu taxawal guddi gi fii ci Kaolack sun borom dimbale ñu bañ boole ñu ci ñu dénkoon ñu lu aju ci waañ bi ñu ci sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla ndax depuis commencement ba ba léegi daanaka ñu ngi ko ànd ak moom mu mel ni bi ñuy commencé euh, ñetti nit ñeenti nit ñoo ko doon fekkee waaye li ñuy wax ne yoonu yàlla boo koy def te yàlla tax rek suñu borom a koy yokk ba léegi gis nga tey boo ñëwee ci kër gi danga xam ne wax dëgg yàlla da xam ne liggéeyal yàlla liggéeyal yónnent bi te am ca ndiggalu sëriñ bu baax rek am njëriñ ndax wax dëgg yàlla boo xoolee waañ beeg ñi fi nekk ñëpp sant yàlla doo doon taal cin bu ndaw tey ngay dem di taal fukki mbina ba ak juróom wala yu ko yu ko jege te lépp nit ñi man di ci xéwlu loole sant yàlla la bu baax a baax ñun daal ñu ngi sant ñëpp di sant suñ jigéen mi nga xam ne depuis booba ba léegi moom la sëñ Mourtala moom la sëñ Maam Cheikh Anta booleeg ñun mu taxaw ci tam taxaw bu rafet di liggéey ngir yàlla di ko jàppale ci bisam bi loolu tam ñu koy sant di sant soxna diine di sant yàlla bu baax daal di sant mboolem ñi nga xam ne boole nañ ñu ci waañ bi ñu nekk ak ñoom ak waañ ni mu métteeg ni mu tàngee ak ni mu àndeek jafe-jafe waaye kenn dawut kenn daayiwut loolu yëpp ñu koy def ngir yàlla ñu ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla lépp lu nga xam ne yiw la te ñu def ko ci bépp ñaq ci toqal suñu borom mën na koo ful comme nu ko Seexul Xadim waxee woon ci jas boo rek ne képp ku ci def ab dërëm mën na laa rëmmoo ëllëg kon ku ci def sa ñaq waxi noppi te daa am góor gu baax goo waxoon ne aw aw yaram mën naa tilim nga raxas ko waaye ay bàkkaar génnee ñàq ci fi nga ko war a génnee moo koy moo koy raxas kon nag bu ñu yàlla dimbalee bañ taxawu ci lii nga xam ne kenn mënta jëf jëf ju gëkoon a rëy kon loolu dañ ciy sant yàlla di sant tam média bi nga xam ne moo bàyyi yitteem yëpp ñëw fekkee si lii ñu koy sant di sant mboolem ko nga xam ne taxaw na ci rek xam naa ne daal ci gàttal bu wax ji jubut tam amoon nañ yéene mu rafet waaye lu nu bu ñu la ko dénkee suñ la dékkee micro xëy na yu bëree bëri doo ko mën a wax ngir xool ba maa ngi ziar bu baax di baalo àq ngeen baal ma àq baal naa leen àq yéen ñëpp man damay sant yàlla bu baax a baax ndax euh, gàmm gi biñ ko commencé ñoog sëñ bi boobu meew lañ daan def ak ay bëñe di ko di ko lekk beneen at bi tegu ñu suñu xar mu ndaw di ko togg tey jii macha allah ay nag nagi nag nañuy la ñuy rey dara du manqué dara dara dara dara manqué wu fi. ñun nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñëpp nag ku ci def sa dërëm rek ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ci waay def yàlla na ko yàlla ful ay million yàlla bàyyi ñoog sëriñ sëriñ bi ak soxna diine yàlla may leen gudd fan wér gu yaram yàlla dàqal leen lépp lu ñu ragal ki jullit yi mbokk àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di leen ziyaara di jiital ci nuyo bi ki fi nekkal sëriñ Tuubaa muy sëñ Muntaxa di rafetlu taxawaayam bu baax damay wax ne yoon wi day mës sa màgget waaye beesaat na pex ci pas-pas ak pësteef ci bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa ak bëgg a dundal xam-xam yàlla na yàlla dëgëral ko di nuyu di ziyaara sëñ Mamor mi nga xam ne moo nekk ci bopp kër sëriñ Murtada ak mboolem waa sëñ Murtada gépp ñu ngi leen di ziyaara di rafetlu seen taxawaay di ñaan yàlla yàlla gën a dollee benn le mboolem jullit ñi ci àdduna bi gannaaw loolu xanaa di bëgg rek ndax bis bu tedd bu màgg bi di guddig yonent bi sallallahu alayhi wa ku suñ boroom nar te dimbali naru laa xettili ëllëg naru laa fay du la xéer ci di ko dundal kenn ku ci ne war nga mën a dawal sa xel ci ne dundal ko war na ndax suñ borom moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallasina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima maa ngi koy fàttali ci kaw loolu bi nga xamante ne suñu sëriñ ba suñu wayjur wa suñu xarit ba cheikh Mouhamadoul Mourtada jox nañ ndigal li bam ñu ko joxee dañe woon nañ ko dundal ci alxuraan ak sunna ak salaatu ala nabi rawatina fukki junni ak ñaar ak ñeenti téeméer bi nga xamante ne jox nañu ko ndigal ñu ñëw fii di ko dundal ci këram gii ci Kaolack ci Kasnack ndax bu ñu fàtte ne moom da koo fonkoon di ko defal boppam ci Bambey fala ma joxe ndigal itam ci kanamu ñu xam ne ñu ngi ci jataay bi waaye bu leen fàtte ne daana ko dundalu parcelle njëkk sëñ mamoor di ko dundal ca Bambey gannaaw bi mu wàccee liggéeyal waaye bu njëkk sëñ mamoor daana ko taxawee Ndakaaru kër yi maam ci Sénégal yëpp ba bitim réew daf ko fa digle woon ndax fonk gu mu fonk yonent bi sallallahu alayhi ñun ñu am tawfeex mu digal ñu ko fii ci dëkk bi dëkk bi nekk dëkk moo xam ne dëkk bu fonkoon la fii la daan waaja di dem poroxaan kër gi jàkk ji moo ko rëddal boppam fii ma toog nii fii la daan féete lu bare bare bare waaw yàlla def na googu tawfeex kon bu ñu amee tawfeexu mu digal ñu ko fonk loonu ko ñu di ko jéem a fonk nañu sant yàlla bu baax bi loola amee yàlla boole ñu ci kóllëre ak fathul fata ñu bokk ci ñi nga xam ne ci ñi ko maanaam ci ñi ko fonde daal mën nañu wax ne kenn jiituwu leen ci sëñ Momadou Thioy mi ginnaaw yàlla mooma boolee ak ñoom kóllëre ñu di ci liggéey liggéey bu rafet ak ba ci daayira bii ci kër ginnaaw bi mu topp ci di ci def jëf yu rafet ak mboolem jullit ñi ak mboolem taalibe àdduna bi yëpp nag ñu ngi ciy jàpp fu ne nag la nit di jóge ci Sénégal di fi ñëw waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di xam ne gàmm moom mësta dañ ji rafet waaye rawatina ren jii nag ndax day mel ne saa yu bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jublu see rek dana am ñoo xam ne noonu lislaam lañ di wax ci diine lu ñaaw wala di ko ci jéem a def man nag ñun danañu ko wone danañu ko fayoo ci wone cofeel guñ am ci sallallahu alayhi ak cofeel guñ bëgg nit ñi am ko ci moom maanaam dañ koy def ngir lu yokk suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma koy tàmbali laa wax ne defuñu ko ngir gileem guy jóge fenn di ñëw wala suukar suy jóge fenn wala ceeb buy jóge fenn wala xaalis buy jóge fenn dañ ko def ngir lu yokk suñ cofeel ci yonent bi sa alayhi wasallam yàlla dogal na lu bëri buñ koy sëddale dañuy teggi waaye dañ ci sant yàlla rek ndax ñun dañ koo def ngir lu yokk suñ cofeel rek waaye suñ borom lépp la defar mi ngi defar lépp it nag ndax li ñu Sëriñ Tuubaa defal tey ak ëllëg kenn mën a lu nu ko waaw bis bu ne day am firnde kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw